ak jaaxle askatu Ngéwélam it di yeewoo saa su ci jamono ji nga xam ne weer rek ci des ñu daal yi di dëgmal nawet mu fare ci commune bu Diourbel su quartier bi di Ngéwélam it ay at a ngi nii ma nga ca biir ndox mi ci noonee nag yenn ci kër yi nag daal dinañ leen jot a abandonné waaye teewul am na ci ñoo xam ne ba léegi nii ñoom ñu ngi si seen biir kër yi di dëkk ak ndox mi loolee nag moo dal soxna si nga xam ne mu ngi wuyoo ci turu Ndeye Amy Pouy moom mi nga xam ne nag malgré ndox meeg lu ni mel mu ngi dëkk ci kër gi moom ak borom këram ak ci doomam. même bu ñuy wax ñoom bokk kër mu mel yaa ngi yor ay xale yor njaboot kenn pompé ko xale yi ci biir ndox mi la ñuy foofu kenn mënul leen dara ku ne xam na xale ngay wax ba sonn. dëkkandoom bi itam lu ni mel lay dund. lii nag dafa nekk lu metti lu doy li nga xamante ni ñun ñu ngi koy dund te ay dara teguñu ko lu dul ay nit peut-être dénoncé wax nañu dóor nañ ñu. xeex nañ lu lu ñu xam lu ne def nañ ko. sinistre yi fare ci Ngolomit ña ngay sàkku ci autorité centrale yu bees yi ñu daal di sóobu ci li nga xam ne la ñuy jot a dund ak ndox mi la indi ci ay saafara. bu ñu sañoon nag gouvernement bu bees bi gis ngeen la ñuy dund ñe la ñuy dund ci ndox mi la ñuy dund parce que amuñu fexe te bu nawet ñëwee ñëpp ay génnaat demaat kër gi day fisaat dem doo fi mën a ne. ñun daal wax dëgg yàlla sonn nañ trop mais nag aussi ñu ngi xaar ci président Diomaye Faye par rapport ak projet projet bii mu wax. ñun waa Ngol mi ñu ko ciy xaar bu baax a baax a baax surtout aussi waa Diourbel it ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax mu jàppale ñu ci ndox mi. gouvernement bu bees bi nga xamante ni gouvernement jeune la yàlla tegal ñu ko fi. moo pour ñu dimbali ñu si lii ndaxte fu mu nekk nii ñun noor bi lañ fi nekk nii mais nawet bi kenn xalaatul ñun ñëppay génn te kër yëpp tëj nañ koñ bi yëpp ñëpp génn nañ ñu dul ñetti kër. lu mooy Ngolom it nag yeneen zone yi. lu ne mel la ñuy dund.